léegi ñàkk ndox ba nga xamante ne nii ràññee nañ ko Grand Yoff euh, Golf Sud Malika Guédiawaye dem ba Thiès ak Kébémer. ñoom li ñuy manqué ndox daa bëri de. waaw Grand Golf ñoom li ñuy manqué ndox bëri na te ndox moom dafa bokk ci doomu aadama. waaw liquide précieux boobu nga xamante ne nii moom la doomu aadama di dundee saa su nekk tamit warul di manqué. Mhm. waaw mais li ko waral moom mooy euh, benn nouvelle surprenante bi nga xamante ne nii après quelques quelques semaines. bu ñu def fële ca lancement grande pompe ba nga xamante ne moo féetee fële ca Kër Momar Sarr Kër Momar Sarr waaw nouvelle usine 3 ba boobu noonu daal moo am ay problème moo tax ndox seen kii bi di muy am problème amul léegi nag gars yi mënatuñ ko muñ mhm. mënatuñ ko muñ mu ngi mer ñu ngi génnee seen na contentement mhm. xam nga root dafa métti. Mhm. mu doon loo xamante ne ne autorités yi war nañ ci bàyyi xel. yow euh, robinet mas nga tëj ngay wëri ndox. ay waay ba pënd. ku mu dalu def naa ko métti. yalu paan di ko wërili sama yaay. ci laa leen ndakkate ndox daal daal daal daal dañuy ñaan yàlla daal euh, yàlla saafara loolu. parce que mhm. ku ko dundul xamoo ko. am ñoo xamante ne moom xamuñu ko. dunduñu ko moo tax bu ñii gars di wàcc sur le terrain di ñaxtu di def seeni morceau yu rouge mhm. mm, bu ciy nit di wax lenn dama naan dafa dañoo dañoo jànkontul ak euh, dunduñu problème yu mel nii mhm. mais problème yu mel moom boo ko dundee mhm. nit ki buy ñaxtu wàllu ndox noonu ni nga ko ci encouragé mais yàgg na si réew mi sax dañ si war a jël ay matukaay ñu xool nuñ koy wàññee mu wàññeeku bu baax parce que tey mënuñu dëkk si saa su ne nit am problème ndox de mën nga manqué courant en fait facture yi noonu lañ géré c'est ça mhm. lépp la ñu yokk dañ ko yokk mhm. noonu la mais loolu c'est difficile quand même mhm. ñu wax ñu wax ko tëddee ñu ñu xool ñu xool naka la ñuy def ba ndox boobu ñu mooy tandiku muy manqué tout le temps parce que wuti ndox moom dafa métti surtout jamono ji sa doom war a xëy jàng nga war a dem uti ndox lijjanti lekkam sangoom ak léppam mais yenn saa yi nii nii parce que nii secteur Grand Yoff bi am nañ ci ñoo xamante ne nii seen robinet xam nga kañ lay ubbi entre vingt trois heures ak une heure du matin parce que ñoom ñoom ñoom dañ ko def fi ñu nekk dafa suufee non même bu dul foofu bu suufee bu suufee bu fekkee fi nga nekk dafa suufee ma même nga nekk fu même nga nekk fu suufee ñoom ils ont les moyens nga xamante ne war nañ ko génnee def ko ba nga xamante ne ku nekk da nga am ndox boobu noonu dijee ci ville bi rek am na fi mhm. il suffit que nga dëkk premier étage waaw problème ñëw na da ngay xaar vingt trois heures vingt minuit pour mën a am ndox. Mm-hmm. mais loolu loolu loolu du si état bi de. léegi yow kan la. non dafa suufee am na ñoo xam ne fi ñu dëkk dafa suufe pour ndox yéeg problème la. Mm-hmm. mais am na ay problème la euh, leen dafa am loolu dafa yàgg. njaga boo dëkkee fu suufe ni am na yoo xam ne dama tënkee yenn mm-hmm. dëkk yenn ko ñu ñu am ndox dafa dañuy am problème. mais am na yoo xam ne dañ ko teg juste pour. mu eh, eh, am koñ bu suufee moo war a gën a. moo gën a war a ëpp ndox parce que da nga déggee donc du coup la la même bu dul loolu sax am na yu ñu fi teg yoo xam ne loolu day xëcc ndox bi ba tax na ndox bi dafay gaaw a yéeg dafay yéeg li ci jot mais léegi avancé nañ dëkk même nga dugg fu avancé na yow waroo ñàkk ndox mhm. parce que da ngay seetlu par exemple comme ni mu ko waxee immeuble yi tout le temps ñi dëkk ci suuf ñoom ñooy am ndox mhm. parce que ñoom ñoo gën a jege euh, kii bi ni ñu koy waxatee euh, nu mu tudd condition yi mhm. mais kontaan yo nga deuk fa nga xamante ni c'est carrément bas et que amoo ndox depuis des jours tamit faudrait ñu xol la ah, mais tay bo xolé yenn immeuble yo xamné ni immeuble yu am solo yu nekk ci réew mi ci kaw duñu am manqué ndox. waaw parce que am na. parce que def nañ fa lepp li fa war. mais euh, deuxième actualité bi lan la. deuxième actualité bi ñu dal di ñëw ci gone googu nga xamante ni nii au lieu mu jàng daful jang ci xelam lu dul leneen la def ci xelam. jang na sax xel mi la yóbbu. foo ko neex rek kii la rek daal nuñ koy waxatee. comment góor la n'est-ce góor góor la waaw góor la koy waxatee. <laughs> mais pourquoi je dis d'arrêter il ah, jigéen ñi la ko bëgg a jox du ma ko nangu. góor la damay demander xaw ma moo tax may laaj kan la quoi góor la wala jigéen. góor la góor la ak ñaari jigéen ñu divorcé. góor la ak ñaari jigéen ñu mhm. ñoom ñoo ñoom ñoo ne ci ginnaaw moom daal moo ne ci kanam. fees moom daal moo fës. mais loolu léegi dem jàngi di def naka su dul yomb bëgg lu yomb. Mhm. nangul doon responsable. Mhm. xale la di que pour man li yenn yi dëgg bu fekkee doon nga góor yàlla dëgg say parents jur la fan la war nga ko mën a jombale sa bopp. léegi internet bi da dugg sax. da ngay dugg internet. Mhm. dugg Facebook. Ah gis góor yàlla boo xamante ni moom mooy publier ay numéro nee na courtier la numéro jigéen jox ma temps ma jox la numéro. loolu il faut waxtaan ci. Mhm. mooy comme ni nga ni actualité bi nga indi. jox ma temps jox ma temps ma jox la numéro bi. ok foo man foo soxla nag numéro mu ci internet bi. waaw léegi looloo ko rey nag numéro bi mu joxe da koo dëpp. c'est far mu nekk numéro kenen kooku wote porter plainte contre c'est grave hein c'est grave mais xalé la doful de jàng na de DJ mu naan ñu ne ko jàngal li ko intéressé la jël ci jàng bi li ko ah. soxal moom la jël utiliser ko def si lim siy def waaw da koy dund kay moom <laughs> en tout man man man li ma gën a soxal actuellement ne ci biir actualité bu boobu sax mais ndox bi ngir yàlla war a sule jóg di root war a dem tuddi nelaw doo nelaw jóg nekk ci guddi gi di root di dàqee ay bouteille pour ah, après robinet robinet robinet war a ubbi ay une heure de temps deux heures de temps keroog damay sangu fa may bomboo fa la <laughs> robinet am <laughs> ñoo xamante ni à part de minuit wala deux heures du matin. waaw yooyu day yeew day nelaw ba heure boobu jóg yee. wala benn góor yàlla moom mooy jóg bu ñëpp tëddee. mu jóg di root root bidon yi root paan yi. après nga xëy war a liggéey waaw mooy loolu. mais situation oblige. c'est ça. mais yàlla na ko yàlla saafara. waaw yàlla na ko yàlla saafara mm. comme ça ndox bi ñëwaat. à la norme en tout cas population bi ñoom mer nañ de. Mm. tey moom indiwuma potent comme temps bi daf ñoo xoj yë doon li gënoon fës ci li nga xamante ne moom laa indi kontaan nañ ci actualité du jour bi mhm. am na am na solo parce que ndox moom mooy doomu aadama ndox moom mooy lépp boo sanguwul mhm. doo set te ndox moom à tout moment war nga di naan ndox parce que ndox dafa bokk ci doomu aadama mhm.